Euh, nuyu mbokk téléspectateur u Thiénaba TV euh, jiital ci nuyoo bi la xalif général ba Serigne Assane sek di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di nuyu njabootam imam Serigne Cheikh Amadou Seck imam ratib bu Thiénaba ak ñi mu bokkal liggéey bi nuyu al saan Niana sek chef de village monsieur le maire premier magistrat de la commune nuyu monsieur Babacar Wade moo ñuy àggaleel nuyoo bi nag ba ci son excellence le président Macky Sall di am mbégte di ànd ak euh, équipe bu Thiénaba TV euh, fii nga xamee ni macha allah euh, moom moom la ñuy wax ak yéen mooy Gandon Gandon commune foofu la ñuy wax ak yéen ànd ak délégation bi ngeen seen muy délégation Baye Cheikhou Thiénaba Baye Serigne Assane Seck neuvième xalif de Mame Ahmadou Ndack Seck ñu war a àndandoo nag dugg fi nga xamee ni moom mooy njabeen Toubé Ndiabène Toubé ku ko wax di nga fàttaliku mag ñi nga xamee ni macha allah ñoom ñoo fi nekkoon. Euh, doon liggéey liggéey bu am solo ci wetu Cheikhou Thiénaba waaye tey liggéey boobu moom moo fesaat mag ñi euh, nii lañ daan àndee euh, ñu daan def tournée la ko commencé ci maam Momar Talla mi nga xamee ni macha allah en 1900 1894 ci la doon woon baayam maam Ahmadou Ndak Seck yore xilaafa gi ba 1946 moom ma maam Momar Talla Seck maam Momar Talla Seck moomu doon na def ay tournée di wër. Euh, gox yi canaba yi di wër mu xaddami canaba yi macha allah àndandoo euh, macha allah ay fas lañ daan war euh, dugg ci réew mi dem fi nga xamee ni foofu la mu xaddami seexu canaba yi nekkoon di leen tarbiya waaye di leen waar di leen suwaat ci yàlla tey délégation yooyu. Euh, moom la ñu traduire ñu war ay 4x4 ay oto yoo xam ne ay oto luxe la macha allah jaar fa mam Momar Talla Seck doon jaar ak ñi mu daan àndal démb ak barki démb macha allah ñëw seet si njaboot gi tey nag euh, ñenn ci njaboot gi euh, ñi ñuy seet si tey mooy waa njabeen Toubé njabeen Toubé nag mën naa wax sax ni tund Toubé yëpp ngay ngay njabeen Toubé macha allah Gandon dem ba Laybar dem fi nga xamee ni macha allah moom mooy tund wi yëpp. Euh, Baye Cheikhou Thiénaba ñoom la gane si tey euh, ci gàmmu gii nga xamee ni tey euh, samedi le 6 janvier 2024 mu nekk gàmm gàmmu Ndiabène Toubé mu nekk loo xam ne lu am am solo délégation boobu ngeen di seen ñu ànd ak njaboot gi ànd ak njabootu maam Ahmadou Ndak macha allah bu ñu wàccee dañ leen jox tur yi ñi nga xamee ni ñoom ñoo gunge Baye Cheikh Thiénaba Baye Serigne Assane sek mi nekk neuvième xalif de maam Ahmadou Ndak Seck ginnaaw bi nga xamee ni Baye Serigne Abdou Rahim sek di xalif général nekk huitième xalif général de Canaba euh, yore woon na Canaba euh, macha allah ci fukki weer ak juróom euh, ci at ak tuuti ci la yore xilaafa gi liggéey ci liggéey boo xam ni wecc na ay fukki at ak juróom moom Baye Serigne Abdourahim sek ñu koy ñaanal yàlla na yàlla dugal ko àjjana te mu dëkk fa ci barke yonente bi sallallahu baa wa sallam Baye Abdourahim Seck mu ngi jëloon xilaafa gi en 2020 ginnaaw bi nga xamee ni magam Baye Serigne Cheikh si Tidiane Seck xalif général de Thiénaba bi ko yoroon fukki at ak ñaar Ah, macha allah liggéey liggéey bu rëy ah, ci biir ah, réew mi waaye liggéey liggéey bu rëy ci biir Thiénaba ànd kook ak njaboot gi Baye Cheikh tijaan Tidiane moomu macha allah moom moom la Baye Serigne Abdourahim jël xilaafa gi ci loxoom waaye Baye Cheikh Ahmed Tidiane en 2008 ci ci la ko jëlee ci ki nga xamee ne mooy magam Baye Serigne Ousseynou Xaar Seck borom sikar leen ku sikar sa sikk dana dañ Baye Serigne Ousseynou Xaar macha allah moom tamit liggéey liggéey boo xam ni liggéey bu la li donn Euh, ay baayam waaye donn maamam muy maam Ahmadou Ndack Seck euh, ci liggéey bi mu liggéey euh, ci réew mi waaye Baye Serigne Ousseynou Xaar kilaafa gi mu ko jëlee woon ci magam Baye Serigne Ousseynou Khoudia Seck macha allah mi nga xamee ni wax nañ ni moo jaay ay këram ñëw weccee ko defaree ko renouveler ko wala renove ko la grande mosquée bu Thiénaba muy jumaa ji nga xamee ni moom la fi mag ñi defoon démb ak barki démb moom Baye Serigne Ousseynou Xaar euh, jaay ay këram ñëw defaraat euh, jumaa ji euh, mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la waaye Baye Serigne Ousseynou Xaar fan la jëlee xilaafa gi ak ci kan la ko jëlee mu ngi ko jëlee ci magam Baye Serigne Mouhamadou Li Seck baayu Serigne a sek borom ndigal mi nga xam ne ñeenti at la fi def Euh, muy 1988 euh, ba 92 euh, moom Baye Serigne Mouhamadou Seck macha allah liggéey fi liggéey boo xam ni waaye defaraat xol yi waxoon ni sama xol génne naa ko teg ko ci tàpparka tàpp ko ba mu nooy ba mu nooy nepp ma lépp loo xam ni def cee nekkoon safaan te safaan sax amu ca woon macha allah ba mu set wecc moom Baye Serigne Mouhamadou Seck baayu Serigne Assec borom ndigal Baye Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Euh, bi nga xamee ni moom mooy ab xalifaam moom Baye Serigne Mouhamadou Lu Seck mu ngi ko jëlee woon euh, ci Baye Serigne Alpha Mamadou sek euh, bi nga xamee ni 88 ci la nelaw Baye Serigne Alpha Mamadou fukki at ak juróom yore na ko xilaafu maam Ahmadou Ndak liggéey ci liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la borom Kajoor mi nga xam ne moo nekkoon Kajoor doon fa liggéey liggéey bu rëy waaye magam Baye Serigne Ibrahima Seck bi mu nelawee ci la ñëw jël xilaafa gi moom Baye Serigne Alpha Mamadou Seck kon Baye Mamadou mu ko jëlee ci Serigne Ibrahima Seck borom yaaram 27 euh, ans la dund ci xilaafa gi moom borom yaaram Baye Serigne Ibrahima sek macha allah euh, ñëpp xam nañ liggéey bi nga xam ni liggéey na ko Baye Serigne Jibrilu Seck Baye Serigne euh, Cheikh Amadou Seck imaamu ratib bu Canaba Baye Serigne Alsaan Ñaana Seck ak Serigne Ahmed Dam bàyyi soxna mata Mbay ah, mi nga xamee ni macha allah moom borom yaaram moom la ñuy jooy te noppeeguñu waaye doomu ndeyu Baye El Hadji Talla Gueye suñu waajur macha allah liggéey fi liggéey boo xam ni liggéey bu rëy rëy la. Ah, Baye Serigne Ibrahima Seck mu ngi jëlee woon xilaafa gi ci baayam muy kan maam taa Talla sek mi nga xamee ni 1894 la jëlee xilaafa gi ba 1946 muy juróom fukki at ak ñaar la donn baayam moom maam Momar Talla Seck maam Momar Talla Seck moomu. macha allah euh, moom moo daan ñëw ci gox yii euh, tey macha allah fii ñu jëm euh, muy Ndiabène Toubé maam Momar Talla Seck ñëw na fi. waaye mu xaddamal na fi ku ñuy góor gu ñuy wax maam Bakka Diop muy nekk premier mu xaddam maam Talla maam Talla maam Momar Talla Seck góor gu mag fii ci njabeen Toubé waaye góor googu di maam Bakka. Baye Ibrahima Diop chef de village moom mooy ab xalifaam ñu ngi koy ziar di ko ñaanal yàlla. yàlla na fi yàgg te ci barka Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ñi ñi teeru woon maam roqeetu roqeetu euh, moom maam Bakka Diop ci la bokk macha allah maam roqeetu maaju ñu dégg ni kon euh, ci suuf sii la tëdd muy suufu Ndiabène euh, Toubé waaye góor gu ñuy wax maam Ndagg Diop moom nekk Euh, euh, nekk maam ci Baye Moussa Diop Baye Moussa Diop mi nga xamee ni ndeysaan moo fi nekkoon président fédération liggéey fi liggéey bu rëy euh, tey mu dem wuy ji boromam yàlla na yàlla dugal ko àjjana te mu dëkk fo moom Baye Moussa Diop ñu ngi koy fàttaliku macha allah defal nañ ko ko ay émission foofu ci Thiénaba TV ci jamonoy koor fàttaliku ko ndax ndawul seexu Thiénaba la woon seexu Thiénaba la doon liggéeyal moom ak mag ñooñu ma tudd ñu nekk mag ñoo xam ni mag ñu ama am solo la waaye suñu meneen maam mu ñuy wax maam Ndaga Euh, maam euh, maam abu Diop maam abu Diop macha allah moom bàyyi la ci bàyyi jibi Diop mi nga xam ne transporteur la tey dafa xaw a wéradi mu ngi ci biir dëkk bi euh, macha ñu koy ñaan. mu wér ñu koy ñaan yàlla na yàlla wéral ko ci barke Seydina Mohamed Salah Salam ci barke Cheikhou Thiénaba moom mi nga xamee ne mooy Baye Jibi Diop nekkoon transporteur waaye nekk taalibe Cheikhou Thiénaba nekk ki nga xamee ni doom la ci maam abu Diop waaye geneen góor ñu koy wax maam Mandiaye Ndagga Diop euh, bi nga xamee ni bàyyi la ci euh, Pape Ndiaye Pape Ndiaye euh, bu ko waxee dinañ fàttaliku électricité muy installation gàmmu Serigne Ibrahima sek Pape Ndiaye électricien bi nga xam ne amoon na ay taxawaay moom tamit macha allah tey fekkewu ko tey dafa nelaw moom Pape Ndiaye yàlla na yàlla yërëm ko yàlla na yàlla dugal ko àjjana Pape Ndiaye moomu macha allah maam ma Ndiaye ndàgg moom mooy baayam maam Birane Ndiaye Seck mam Birane Ndiaye Seck tey. Euh, moom bàyyi la ci bàyyi jibi sekk waaye bàyyi jibi sekk moomu euh, ki nga xam ni tey moom mooy ak xalifaam mooy bàyyi Yuusufa Sekk bàyyi Yuusufa Sekk di bàyyi ci euh, Serigne Ibrahima Seck mi nga xam ni tey jokkoo naag Thiénaba TV relation bi rafet na waaye kooku moom mooy bàyyi ci muxaddam imaam Yuusufa Seck macha allah bi nga xam ni Baye asan sek moom moo ko moo ko xaddamal kon maam biraan Ndiaye Seck nekkoon na mag ñi nga xamee ni ñoo daroon Seexu Canaba mag yi nga xamee ni tey ñoo taxaw woon Seexu Canaba fii euh, ci dëkk bi muy Ndiabène Toubé euh, meneen mag euh, famille bii ñuy wax famille Bira Ngay Diop moom bàyyi la woon maam Bira Ngay Diop ci imam Doudou Wadda Wadda Diop macha allah mi nga xam ni tey euh, moom euh, xalifa bi euh, di maam xalifa maam Bira Ngay Diop moom mooy xalifaam président Samba Diop ñu ngi koy jaajëfal di ñaan yàlla na yàlla jàppale ko ci barke yonent bi maam Mamour Diop bi nga xam ni bàyyi la ci l'actuel imam ratib bu njaben Toubé. Euh, bi nga xam ni Baye Ousseynou Diop lañ koy wax Baye Ousseynou euh, mu ngi fi taxaw taxaw diine ji taxaw la grande mosquée euh, de Ndiabène Toubé liggéey bu rafet la fi liggéey moom góor googu macha allah ñu koy ñaanal ak ñu mu àndal bilal yi imaam yeeg naayib yeeg ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla nangu seen i ñaan waaye maam. Euh, Madialla Gueye maam Madialla Gueye euh, xalifaam maam Maguette Gueye Baye Maguette Gueye lañ koy wax macha allah ñu ngi koy ñaanal euh, foofu tamit wax nañ ni kër googu ñoo daloo woon soxna Roqeetu Maadiyu wala bokk nañ ci ñi daloo woon ñi nga xam ni mooy soxna Roqeetu Maadiyu maa ngay ndàgg Diop xalifaam di Iba Diop macha allah moom tamit ci mag ñi la bokkoon maam Banda Diop xalifaam di Birahim Diop moom ti mag ñi la bokkoon waaye ñii may lim muy Baye Modou Diop ba. Euh, Baye Mbay Ba Baye Birama Ba ñëpp xam nañ ko euh, Baye Abdou Ba Baye siini Ba macha allah ñooñu nga xam ni surtout euh, ma duugi ba ma duugi maam maam ba ba macha allah maam Njaga Ñang ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne mooy mag ñi nga xam ne macha allah ñoo àndoon ak maam ah maam Momar Talla Seck ci liggéey bu am solo. Euh, bi nga xam ni euh, ñu ngi ko doon liggéey kon nii la ñu teeroo euh, macha allah Baye Serigne Thiénaba Baye Cheikh Assane Seck nii lañ ko teeroo ci Ngaye Ngaye vêtu tout blanc macha allah sol lu weex tàll photo maam Ahmadou Ndak la ñu seen seen i dënn góor jigéen mag ak ndaw mu nekk loo xam ne lu am am solo la lii moo xew fii ci Ndiabène Toubé. Euh, ñu teeru Cheikhou Thiénaba euh, maam euh, moo Baye Assane Seck mi nga xam ne mooy neuvième xalif de maam Ahmadou Ndaak Seck ak yan ak baatu laa ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Thiénaba TV nii lay dundee ak yéen macha allah nii la leen koy dundee yéen ñi nekk biir Ndiabène wala ngeen nekk ci biir adduna bi wala ngeen nekk Thiénaba nii ngeen koy dundee macha mu nekk loo xam ni lu ama ama ama am solo la. waat jaajëfal leen yéen ñi ànd ak Thiénaba TV. Euh, la télévision de Mame Ahmadou Ndack ñu ngi fii euh, ci Ndiabène Toubé ànd ak Baye Cheikh Thiénaba Baye Serigne Assane Seck euh, le xalif général de Thiénaba neuvième xalif bi nga xamee ni macha allah mooy xalifa Mame Ahmadou sek ñëw fii fek si mag ñi nga xamee ni ñoom ñooy waa Ndiabène Toubé ñu ànd ak la télévision de Mame Ahmadou muy Thiénaba TV télévision bi nga xamee ni macha allah lépp loo xam ni xibaar la wala lépp loo xam ni war ngeen ko war ngeen koo war ngeen koo gis wala ngeen dund ak moom euh, macha allah dina feeñ fii nga xam ni euh, moom mooy njabeen Toubé kon mag ñi nii la ñu dundee woon. ñu euh, comme ni ngeen ko gisee Alioune Alioune yaakaar naa ni Baye Cheikh Thiénaba ñëw na fi nga xam ni moom mooy njabeen ñu war nag jàdd am ci kër goo xam ne foofu la ñu jëm kër gi ñu jëm ban kër la. waaw kër gi ñu jëm day ñëpp ko nangul tarixa bi. Mhm. ñëpp ko ñëpp ko nangul Ndiabène. Mhm. Euh, Baye Assane Seck nag jëmu fa ndax ay at Baye Assane Seck jëmu fa ndax wërsëg waaye nag li tax mag ñi daan jëm ci barab lool tax Baye Assane jëm fa mooy pas-pas mbay gay xale la mais pas-pasam képp ku mu dëkkal fii ci dëkk bi nangul nga ko ko nangoo sonni canaba ak nangoo cee def alalam macha allah nangul nga ko moo tax tey jii euh, mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñoo doon coordonné bis bi ba tey jii nag waa gàmm gi ñoo déggoo lii daani balasam bu ñëwee mu àgg fa dallu mais bu dee juróomi la incha allah ba soxla ko cant mu doog a ñëw ci mbooloo mi alaaj Njaambe kooku muy Mbaye Gueye euh, kon dafay jaar euh, dallu assa su ndaw a ñu jógaat nag dem fi nga xam ne moom mooy tant ne xëy na taalib yi dañu xaw a ñeewante sëriñ bi comme mënta gàntu kenn ah, ku xewle mu bëgg a dem ñu ñu jéem nag di bàyyi xel ah, temps yi mi toog muy xaw muy xaw a néew xam naa lool la ñu loolu la ñu bàyyi xel comme mënu ñoo gàntu ci cérémonie bi bu ñëwee ñu ut fu ñu ko teg rek kër Mbaye Gueye mu jaar fa donc ay minutes yoo xam yu néew lay doon sagal Mbaye Gueye ci pas-pasam donc boo problème jot rek baa mu jige incha allah nu ànd ak moom nag dem ci cérémonie bi ndax pénc maa ngi suñu ginnaaw ah, kon mbooloo mi ñu àggee ci kër ga ba ñu ko yaakaar naa dinañ leen euh, libere euh, ñoom tamit ñu mën a dem ci tante bi nag xaar sëriñ bi ah, euh, sëriñ bi waaj a ah, waaj a génn alaaj njàmme bu ñu àggee gunge ko nii waaw xam nga taalibe yi moom mhm. seen sago ak seen xërte bu nu seen bu sëñ bi xasee dugg tuubee seen bët du tegee ko ci moom mhm. waaye nag ci wàllu organisation mhm. buñ ko buñ ko accueillir nii ba mu dem ba toog nag ñoom ñëpp dañuy wax nag ñu dem tante ba nag toog teeru xalif bi nag bàyyi ko xel incha allah bu ñoom jotee mu fekkal leen foofu nag loolu daal yaakaar naa ci wàllu organisation ak protocole noonu lay war a demee El Hadj Ndiamé. macha mu nekk lu am solo waaye fii ñu jëm euh, euh, kan mooy waajur wi fi nekkoon waajur wi. waaw waaw kan la. Baye Cheikhou Gueye. Mbaye Gueye doomi Baye Cheikhou Gueye la. fi ne man mi xam Mbaye Gueye léeg-léeg ma dégg gis ku ku jëflanteeg Mbaye Gueye yéem ko ci ak taali bi ak pas waaye si ce boo xamee baayam Baye Cheikhou Gueye da ngaa xam ne mbay lu am am pas-pas lu mu am am ak taali bi des na Baye Cheikhou Gueye ba ni mu demee ba télé guddi aju xale yi bàyyiwu ko ak yi fu guddi aju mu am ci dëkk bi soo àggee àgg fekk fa mag mu am bijaaw bàyyi seexu géey la ngir yàlla àggu taalibe gi yàgg parce que kooku nag moo jur mbéy géey mhm. fii nag du kër gu mag gi waay mbéy géey ci ak yaasaram ak yokkam moom moo ñëw sanc fii ak kërug boppam nag kon save locage soo sax ba as dana ko ñaanal ci dal bi ndax dal bees la euh, kon mu ngi noonu ku ñàkk ji nga jariñu loolu la mag ñi waxoon euh, laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy baat bi ñu teeroo Baye Serigne Assane Seck xalif général bu Canaba laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy baat ba nga xamee ni moo taxoon maam Ahmadou Ndaak Seck euh, macha allah bàyyi lépp ginnaawam dem ngir baat boobu taxaw tey ñu ngi fii euh, ci Ndiabène tube Alioune wax naa ko léegi ay mag yoo xam ne ñoo nekkoon fii àndoon ak Cheikhou Canaba Euh, àndoon ak waajuru kii nga xam ni tey moom mooy ñow njabeen muy kan muy góor gu mag euh, maam Momar Talla Seck mag ñooñu ñan la maam Baka Diop bokk na ci macha allah première mu xaddamu maam Cheikhou Thiénaba euh, macha allah ràññee nañ ci maam Ndaga Diop ràññee nañ ci maam Abou Diop. ràññee ci ki nga xam ni moom maam ma Ndiaye ndàgg waaye maam Birane Ndiaye Seck ràññee nañ ko ci ñooñu seen i njaboot tey ñoo taxaw fii di teeru Baye Cheikh Thiénaba. Ah. góor gi Malick Gueye. góor góor gi Malick Gueye. Baye Baye Abdourahmane Gueye ñoom. Ah, famille Bira Bira Gueye Diop. Baye ñoom Iba. Ah, fari famille Baye ñoom Mbodj maam Mamour Diop. maam mhm. Madialla Gueye. Mhm. macha allah ak maam Banda Diop. Baye Baye Birama Ba. Baye Birama Ba ma Ba tey boo nee Baye Birama danga naa Baye Abdou Ba. waaw bay Jarga waaw ca Jarga Ba ak mhm. ki nga xam ni mooy Baye Modou Diop Ba. Baye Adama Ba Baye Adama Ba macha allah kon mu ngi noonu mu ngi noonu taxaw nañu fii ci kër gi Baye Cheikh Thiénaba accident image yaa ngi noonu Thiénaba TV daf leen koy wan yàlla leen ko yàgg wan c'est la télévision de Mame Ahmadou Ndack Seck Baye Cheikhou Thiénaba Baye Serigne Assane Seck euh, macha allah waajuram nii la ko daan defee euh, Aliou Ndoye ba Mame Momar Tall Seck góor nii la ko daan defee ay fas lañ daan war fas taaru lañ daan war tey euh, fas ya moo nekk ay kat kat waaw Serigne Jibril Seck mu ngi ah, noonu macha allah Serigne Jibril yaa yaaram mu ngi noonu taxaw mu ngi noonu taxaw nekk nit ku baax waaye nit koo xam ni ku xam fi mu taxaw nag ku xam fi mu taxaw waaye ku ñeewante mhm. waajuram wii muy teeru ah, muy muy muy ki nga xam ne mooy Baye Serigne Assane Seck xalif mhm. général bu Thiénaba sëñ ma jooja taawu xalifa bi ah, Baye ma jooja mu ngi noonu taawu xalifa bi taawu xalifa bi Baye Serigne bi wàcc na Baye Serigne bi wàcc na Baye sëñ bi wàcc na Baye sëñ bi wàcc na mu ngi noonu mu ngi dugg macha allah yàlla fi yàgg te wér noonu lañ ko teeroo fii mu nekk lu am solo nekk loo xam ni yàlla nañ ko yàgg a def ci barke yonent bi sallallahu mbay gee yaramam daw na mbay gee mbay gee xolam seet na mbay gee yaramam daw na El Hadj Aliou boo duggee ci kër gi rek waaw xam mbay gee kuy sëriñam mu ngi nii Baye Assane nga noonu taala taala taala Baye Assane ngi noonu taala Baye Assane ngi noonu taala Talla topp na Baye Assane waaw jël na jëmmi mu nekk lu am solo yàlla na fi yàgg te wér góor gi li ci Mame Omar Ndaga comme ne ci yow kenn dootu mën a muñ mu ngi noonu lii waaw Mame Omar Ndaga uh-huh. li moom ku ne ci moom ku ne ci yow kenn dootu mën a muñ looloy dëgg Alioune looloy dëgg Alioune kon lii mooy mooy njaben boo déggee pam tuube tund tuube nga ni ngay ngay mm-hmm. ni gàndong ni njaben tuube mm-hmm. euh, yeneen dëkk yu ko wër yëpp macha mm-hmm. allah noonu la ci taxawoon Alioune Ndoye waaw te ni ñuy def ni seen bis ni ñu koy defee ñëpp war nañu ci roy bu ñu nee njëriñoon ak xewle waa ngay ngay kenn du yendu sa kër fii ngay yendu ci dëkk bi buñ ne njabee na xewle waa gàndong du ñu des buñ ne njabee na xewle waa cegel buñ ne njabee na xewle waa bexaar buñ ne njabee na xewle waa njaxeer buñ ne njabee na xewle waa maaka tubee ñoom noon la ñuy a bis ba boo ñëwee bis bi du wéet te foo toll gis mbooloo ngir yàlla jëmbi seexu ca na macha allah kon Alioune dañuy dugg rek bu ñu déggoo daal di daal di sëriñ bi nag ndax am na yeneen liggéey yu ñuy xaar nag béy maa ngi seen béy géy ana Baye Baye mhm. maa ngi seen Baye. Mbaye Mbaye Babacar. kii yaa ngi ma doon laaj ñuy fekk si kan la. Mhm. kii la Baye as fekk si. Mbaye Babacar bisimilah wax naa leen Baye Ndiame. Mhm. nga ne fekk si wu ko ndax ay at. wax naa leen ne fekk si wu ko ndax wërsëg. waaye pas-pas bi mag daan tax a jóg mag ñi. Baye Ndiame pas tax a mag ñi. laa la wax ni moo tax moo tax Baye as ñëw jaar ci Mbaye Guèye mii. kii mooy Mbaye Guèye. kii mooy Mbaye Guèye. di ko xam ne Alaaji Ndiame benn naxukaay la am. boo koy nax fenn da nga koy jaar mooy caraba amul fenn fooy foo koy naxe bi ci des mooy si Assane Seck mooy mooy péetam mooy buntam ci kër Seexu Canaba mu yàgg lool ci ba mu nekk saas mu daan romb geer yi daan romb ñax mi di fekk Baye Ass ci Canaba Gusaas mu yàgg ak Baye Ass damay wax nag mag ku yàgg ak moom mu wóolu la te su la wóoloo dina jox lu mu wóolu ma ne ku yàgg ak moom dana la wóolu te bu la wóoloo jox la lu mu mbay mi ba Ass jox la ko lu mu wóolu lool alaaji Mbay Géey xam naa ne tey kontaan nga sa baay ñëw na ci sa kër sa ñëw na sa kër sa sëriñ ñëw na kër waaye sa xarit ñëw na sa mbay ñëw ba as gi yàlla ci tund wi yëpp yàlla ci dëkk bi ni ak yokku ci yow Alioune Alioune Alioune da mbay euh, ñu dugg ci euh, xalifa bi euh, nuyoon teeg moom rek bu ko defee kaddu yi kaddu yi kaddu yi nag mu faaw mu jóg fi Seydina Muhammad isa diinu lam yakumul fala kanat dunya cana bagana Muhammadu rasulillahi hanni an minu safaxatu fi hadin yanaalu ridaa sa ñaax aksil kulaab dil muwahidi ala xatayin fi san bi awanta mudi sayyiduna muhammad jarairuna tum habijaay muhammadi isa sufi al mahbubu jaasal mubahraju ya rasulilahi bisarato mawjudatun xabla xalqi canabagana wala xulqa yurda ay waay kun baxda xulqi sayyidina muhammad raufun isa alwa samaanun bi rifqi sayyidina muhammad jawaadun isa danal xamaamu bi warqi ya rasulillahi fa fi kafi bahru na daaya tama waju waa baanaana ngi noonu di ñëw sayduna muhammad sabawta ila duniya ay waay wazulu bila yasbu wa harraka minha zalmu baatinuha xarbo kenn du maami seexuna tijaani kon kayfa sarha wa sarrihu laa yuqiru bika alxarbu booy bëgg-bëggal maami seexuna tijaani هو الخير داعي إلى خير ملة كريم جليل من كرام وزلتي حوى الفقر من وجهين وسن وخلتي سيدنا محمد لقد فاز من كان رسول إمامه يا رسول الله يخر بي ونجاة سمامه وكل من استحسن عليها نامه يا رسول الله جنبانا تسير رياح النسر سحرا أمامه فأحداه ما بين خوف وزلتي كنك هنيئا لنا من زباخة في حد سيدنا محمد ينال رداها كل عبد موحد يا رسول الله على خطئ في سن بها وانت مدي جرائرنا تمحى بجاي محمد شنباننا إذا سفي المحبوب جاس المبحرج بصارته موجودة قبل خلقه ولا خلق يردى كنخه بعد خلقه سيدنا محمد رؤوف إذا ألوى سمان برفقه جواد إذا دان الخمام بوطقي ففي كفه بحر ندى يتموج كن ديون تعالى محمد bokk jullit yi bokk taalibe yi loolu leen la wat ci programme bi nga xam ni ay weer a ngi nii ñu ko doon xaar ba yàgg ñu koy xaar ay semaine ba yàgg ñu koy xaar ay bis ba yàgg ñu ko doon xaar ci ay waxtu waxtu yooyu ñu ko doon xaar nag ñun ñëpp kenn doon teeru doon ñaan bis bi yàlla na ko fekk ci wér doon ñaan bis bi yàlla na fekk baay as ci tal doon ñaan bis bi yàlla na fekk baay as ci jàmm doon ñaan bis bi yàlla na fekk baay asan sekk ci xéewal ak njabootam yëpp yàlla nangul nañu ñaan googu yàlla na ko bis boobu nag binaa géeba ci waxtu wii tembe la xalifa général jógee cana ba ñëw dugg njameen tey yaram yëpp daw nañu tey xol yëpp seet nañu képp ku fi toog rek macha allah gis nga loo xam ne gëj nga koo gis wala musoo koo gis loolu nag nit ku ne ak say bagage waaye nit ku ne ak say mbir sëriñ si daan fi dugg kilifa yi daan fi dugg waaye lii ma gis fii tey jii ah macha allah gis naa lu ne dem naa fu ne waaye lii ma gis tey moom maa ngi doo gis loolu nag bagage si kilifa gi la yàlla na yàgg bàyyi si asan sec ñu ngi lay dalal yàgg sa doom sa xarit sa genn sa lépp koo xam soo ko gisee rek sa xel dal muy bàyyi Seex Jibrilu ak ñi nga àndal ñëpp suba ba léegi noo ngi ci dëkk bi ngir bëgg soo ñëwee rek doo gis lenn luy nuroog rëq-rëq doo gis lenn luy nuroog defo waaye doo gis benn tur boo xam ne danga naan foogoon naa ne lii du ci am loolu moo tax soo ba léegi ñu nekk fi ànd ak njaboot gi ci organisation bi ak protocole mi ak boo ñëwee boo nee jàkk sa mbooloo mi ak programme bi maasaara yëg ni am nga njaboot waaye nag Thiénaba TV Alpha Sarr alaaj Ndiame tey programme yi bari nañ waaye dañuy farata ak sunna am na programme yi bari na waaye bu fekkee farata am na ci biir programme yi fa bàyyi as jëm mooy farata ji kon nañ taal oto bi ànd ak bàyyi suñu Assane Seck fu mu teg tànkam ak lu mu wax nu jël ko yóbbu ko waa Canaba alaaji Ndiame ngi nii Alpha Sarr yebal ko mu ànd ak taala ak équipe bu mat sëkk boo xam ne bëggul dara daray bis bi waa Canaba rate ko waa adduna bi rate ko kon dañ ne woon nañ leen ko dal rek ba mu dal nun tam nu àggaat waan ndax am na yeneen liggéey yu ñuy xaar ca baas ba ak pénc ba lépp nag bëgg soo ñëwee rek xam ne yëf yi jox nañ ko gëddaam jox nañ ko ak xam waaye teeru gi ñu la bàyyi nañ ko xel li ci war lépp def nañ ko moo tax ci suba ma bàyyi la fee ndànk ñëw doon ànd ak organisation bi ak programme bi ndax bëgguñu nga ñëw rek gis dara loo xam ni waroo ko jigi sekk moo di nga ñaanal nu bàyyi ji bi yàlla na fan yu gudd bàyyi as bu taxawee ku nu gis rek yow boo ñëwee rek xel day dal loolu yàllaa ko def bàyyi aseen fu mën a jëm ak lu mu mën a woote buñ la gisee rek xel yi dal kon yow sa taxawaay yàlla na yàgg te yemoo ci sa njaboot yëpp a ngi nii say asanum bàyyi moori ngi nii teel a ñëw sol mbubam ni damay teeru sama papa sëñ ma dikkee ngi nii macha allah sëñ Ibrahima Madi macha allah nga xam ne boo xoolee léegi xam ne nekk na ci ay loxo waaw sëñ Ibrahima borom yaaram bu baay jibi moom it macha allah maa ngi seen waa baanaan soxna Atta macha allah moom dëkk baanaan waaye yàlla dogal muy sëy fii ci Ngaye waaye bëgg xalifa bi lool sëñ ma dikkee ngi noonu toog njaboot gi yëpp mobilisé wu taala mu bàyyi usinu xaar ñoom ñëpp ku ci ne bi mu déggee rek yaa ngi ñëw amatul sago li koy doy mooy mu ñëw sa keppaa toog ak yow kon su ko defee rek alaaj njame loolu moo doon dalal gi ñu ko doon dalal fii ci njameen ci aksi gi mu doon aksi nu delluwaat incha allah ci liggéey yi waaw kon mu ñaanal rek nu dem jiitu la jiitu la ci penc ma rek xool rek laa si ak yooyu sëñ ma jaajëfal leen yéen ñi ànd ak Thiénaba TV comme ni ngeen ko waxee rek euh, Baye Serigne Assane Seck euh, agsi na fii nga xam ni moom mooy Ndiabène Toubé bi mu ñëwee nag avant muy àgg ci cérémonie bi euh, dafa ñëw ci kër gii nga xam ne ni mooy kër Mbaye Guèye Mbaye moom moom la ñu taxawal nii moo daloo Baye sëriñ Assane Seck ñaari baat rek ci yëg-yëg bi mu am ci daloo gi mu daloo Baye Serigne Assane bala moo dem tant ba Serigne Mbaye ñu ngi lay nuyu baax. waaw sëñ Moussa ñu ngi lay nuyu baax ñu ngi lay delloo ziar di kontaan bu tey bi muy gàmmu Ndiébène 2024 di wax ni waa Ndiébène gépp dañu namoon lii yàlla defal ñu si ndam nag waaye ndam li dañ koy gërëmee yàlla ak yonte bi ak waa cene ba ndax bi ñu bi ñu programmé lii dañuy ñëw ñi leen nañu nañu nañu defal ñaan waaye tey ñëpp xam na ni ñaan gi nangoon kon nag ñun mënuñu fay waa cene ba yàlla mi am fay yàlla yàlla fay leen bàyyi sax nag li ko indi fii mooy Ndiébène man sama lépp la waaye nag bis tey bi njabeen ak tax mu ñëw njabeen ñoo décidé nii na ñëw wàcc fi sama kër waaye man am na feneen fu ma programme pour mu wàcc fa waaye nag euh, nit ki dafa am loo moom am loo xam ni doomu aadama yi ñoom ñoo ko moom ci gàttal daal mooy bis tey bi daal ñun kontaan nañu ñu ngi seen bu baax suñuy waajur xam ne sama waajur tey fu mu tëdd xolam sedd ndax lii la gëm muy Ceneba ñun Ceneba la ñu gëm Ceneba la ñuy gëm te moo la ñu gëm ba ilaa mi diin kon nag ñu yaan yàlla xalifa bi yàlla fi yàlla def mu yàgg fi loolu te wér ak mbooloo mi ñu sant Seck yéen ñi tam yéen ñu yore eh, réseaux sociaux yi yore communication di tasaare xibaar yi fu toll ñu leen seetaan di kontaan seen taxawaay eh, kàddu yi ngeen di jokkal diggante Thiénaba ak Toubé lépp rafet na loolu mooy seen taxawaay démb mooy seen taxawaay tey te incha si loolu ngeen di fas yéene continuer kon yàlla na yàlla defal leen ci ndam ñu ñëpp ñu dem bay naan alhamdulilah rabbil alamin loolu daal moo doon kàddu yi ci gàttal. Euh, Baye Cheikh Thiénaba muy Baye Serigne Assane Seck euh, dugg sa biir kër euh, mu nekk sanc bu bees tey bi mu bi nga séenee ni Baye Assane dafa wàcc jubtal nag biir bâtiment bi dugg yëg-yëg bi lan la woon. bi yëg-yëg bi mooy sama yaram dafa daw ndax bi ma sama mbokkee dañ ma woon mbay da ngay wàcce kaamir invité nit ñi ma leen waaw loolu lépp dëggal waaye man Baye Assane Seck wàcce na sama kër rek man loolu lépp man loolu doy na bu doon téeméeri kaamir baay son wàcc na fa rek surtout ëmëri ndaag dootu ëmëri ndaag wàcc na sama kër man loolu doy na ma gàllaaj wax dëgg yàlla moo tax bi mu ñëwee tey sama xol dafa sedd wax dëgg yàlla looy tàggoo ñiy seetaan téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi canaba wala ñu nekk ci àdduna bi nag di la seetaan tey ci ci ci lii nga xam ni mooy mooy mooy mbégte mi waaw li may tàggoo ñoom mooy mooy njëkk suñu ngëm-ngëm yoon wi ñu nekk muy muy canaba nañ ci gën a am pas ndax bisu tey bii ni mu alaa ak mel pas-pas ak a waral ku si nekk ku si nekk fa nga nekk yaa nga bëgg mu ñoŋ yaa ngay defar bëgg mu baax ñu amuñu lu dul cene ba kon ñu tamit nañu topp ci gannaaw cene ba cene ba yëpp topp ci gannaaw sëriñ si jàppale si li ñu bëgg ci yoon wi ba yàlla defal leen ci ndam loolu la mooy sa kàddu ñu ngi lay jaajëfal sëñ Babacar kon euh, lii la ñu muy kàddu yoo xam ne mu ngi jogee ci sëñ Mbaye Guèye euh, mi daloo baay sëriñ Assane Seck xalif général bu Thiénaba wax naa leen ko léegi bi ñuy dugg fi nga xam ni euh, moom mooy Ndiabène Toubé mag ñi nga xam ne ñoo doon daloo la ko commencé ci ma Momar Tall Seck Euh, ca jamonoy 1894 jàpp 1946 euh, muy 52 ans yi nga xam ni euh, xilaaf ak Maam Momar Talla la waaye ginnaaw Maam Momar Talla ñi nga xam ne ñoom ñoo ko donn liggéey bi ñu liggéey diggante ak tund tuube njabe nag ngay ngay ak gàndong ak la ca aju yëpp macha allah mu nekk liggéeyu Seexu Canaba yàlla nañ ko yàgg a def ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sëñ Mbay ñu ngi lay jaajëfal lu baax xam naa di joxante rendez-vous rek yeneen jamono ñu mën a daje nag doog a seqaat waxtaan woo xam ne waxtaan wu gën a yaatu